son excellence ambassadeur de la république d'Égypte au Sénégal amal na tukkik nemmeekoom ci dëkk bu tedd bile di Touba mu ànd ak ay kilifa yu bari ci résidence Cheikhul Khadim foofee la la Serigne Abo Mbacké moom Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké daal di terto ak it ay kilifa yi nga xam ne teewaloon nañu fa jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne su Diop ca complexe Cheikh Ahmadul Khadim fa la ñu tàmbalee seenub euh, tukkik ne meeku bi foofee nga xam ne fekk nañu fa sëriñ Ahmadou Badawi Mbàkke mi nga xam ne moom moo jiitee daaray Cheikhul Xadim gi ci foofu sax ci la ambassadeur bi rafetlu bu baax a baax doxalin wi ci diggante Sénégal ak Égypte jaarale ko ci daara ji nga xam ne moom la ñuy dippee Al azar ginnaaw nag bi mu xoolee présentation bi soxal complexe Cheikh Ahmadul Xadim bi ambassadeur bi ne noppi na ngir nag ñu sóobu ci ak partenariat ca ba nu jógee foofu nag bibliothèque Cheikhul Khadim bu Touba ñu di koy dippee daaray kaamil doon ñaareelu pàcc bi nga xam ne visité nañu ko foofu nag nga xam ne fekk nañu fa Serigne Moustapha Diatara mi nga xam ne nag moom moo leen doon xamale bërëb bii waaye it taxawaay wu am solo wi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul amal na ko ci njàng jàngale visite bi nga xam ne nag moom la ñu jagleel jumaa ju mag ji nekk ci dëkk bu tedd bi la di Touba doon naa sporox ci délégation bi ñu saafuwante ak Serigne Afi Bousso ginnaaw loolu nag délégation bi wutali nañu ci Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdou Khadr mi nga xam ne moom moo yor kàddu ko Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké ci ndigalu xalifa général kullu murit Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdou Khadr dalal na délégation bi ci résidence Cheikhul Khadim ba ñu noppee foofu nag délégation bi wutal si nañu ci daara bu Hizbut Tarqiyyah nga xam ne nag secretaire général bi ci turu responsable moral bu Hizbut Tarqiyyah moom moo leen dalal ci loolu nag bari na ci lool ay ponk yi nga xam ne waxtaanee nañu ko bokk na ci coopération bi dox ci diggante Sénégal ak Égypte jaarale ko ci dëkk bu tedd bile di Touba. yen ñii di ñu seetaan jaaree ko ci YouTube su ngeen bëggee jot suñu publication mën ngeen abonné Al Mouridiyyah te bu leen fàtte laal cloche